laneen lu ñu war a jubbanti nag ci réew mi mooy ray gu bëri gi bët bu set ak presque nga dégg ku ñu ray Sénégal te du mujj fenn nag ayow fa ngay xool quartier ba ñuy wax yëmbal benn waay boo xam ne fa doon daan dooleem yore poulailler di yar ay ganaar fañ kaa fekk ca poulaayam ba ray ko ba mu dee ci anam gu ñaaw tàggat yaram Bayern Munich mbuqi na Arsenal dem na demi-finale waaye équipe bu mag a mag bi Real Madrid neexut ba neexut waaye ay ndaanaan lañ neexut ba neexut waaye Real moo fi mën neexut ba neexut waa Barcelone yi ak seeni supporters xam nga ne Real du seen morom démb fa nga na socc woon pare ngi reetaan Real ndax fa na foogoon ne City fa koy mbuqi waaye démb fa gën a jommi Real fa lakk caax ya dugal 1-0 dem ba jongante bi di waaj a jeex ci la City door di égaliser ba pare nag dominer Real bloc bas défense contre attaque noonu lañ ko jàppee bañ dem série penalty Real ne leen tey dee de <laughs> Real kenn farate Modric ñi des ñëpp fa ñoo lakk caax ya 4-3 lañ leen mbuqi kon City fori na neew Real dem na demi-finale Bayern na lay xam de hmm, waa ma bu yàlla dogalee ku bëgg a noppalu fa nga koy nangu Barça ak i supporteram yàlla duñ seen morom duñ seen maas duñ seen màppandoor Real fa xol sedd na rawatina man mi nga xam ne tey 18 avril bii mooy sama anniversaire équipe bu mag a mag bi Real faj maa jox kado bu neex te mooy mbuqil ma waa City waa ma ne benn élève bu fa nekk ci classe c moo fa jam benn moroomam ba mu mujjee faatu lu waral jam gi ak faatu gi ku dem ci page 7 bu source a da nga ko fa fekk. tooxidona ya bunt ba ubbeeku na jee itam ji nga xamante ni am na foofee ci diwaanu Kër Massar ab maçon bu nga xamante ni daal daanaka dafa doon liggéey moom nag ci deuxième étage la jóge daal di daanu démb ci liggéey bi nga xamante ni mu ngi ko doon liggéey moom maçon boobee nag loolu nekk ab accident bu nga xamante ni dafa bett ñu bëree bëri wala nag sax bi mbir mi amee sapeur pompier dañ ko daal di woo waaye itam woo ñi nga xamante ni ñoom ñoo di gendarmerie bu brigade territoriale bu Kër Massar ñoom itam ñoom ñoo daal di ñëw def li nga xamante ni moom moo di constat bi moom sax daanaka anam bi mu doon liggéeyee ñu bëree bëri daal jàpp ni loolee amul woon benn sécurité bi nga xamante ni war na tax mu mun a yéeg foofee moom nag ab néewam yóbbu nañ ko ci l'hôpital waaye nag gendarmerie daal dina ibbi l'enquête ñu bëree bëri itam nag toogaat def ab gëstu waaye itam def seetlu ni que yenn saa yi ñi nga xamante ni dañuy yëngu ci wàllu woowee ñu bëri ñoom dañuy daal di am ay accident ba fa lañuy jaaree ñàkk seen bakkan gannaaw ñàkk li nga xam te moom moo di protection bu mat sëkk ngir seen liggéey mën a jaar yoon ñu wax ci accident de la circulation bi nga xamante ni am na euh, foofee ca diwaanu euh, Kahone foofee nag daanaka sax ab dawalkatu moto tricycle daal moom la ab camion daal di fël mu daal di ñàkk bakkanam ci saa euh, bu ñu sukkandikoo nag moom mi nga xamante moom moo di borom tricycle boobee foofa mu yéegoon daanaka sax am na ñeneen ñu nga xamante ni daf leen cee yeboon waaye daal moom mii moom moo daal di ñàkk ba kanam bakkanam si l'accident bu méttee betti boobu nga xamante ni dund na ko loolee sax bi mu amee gendarmerie bu brigade territoriale bu Kaolack ñoom ñoo daal di ñëw fexe daal ba jàpp ki nga xamante ni moom moo di chauffeur boobee ngir nag homicide involontaire jamono bi sax moom mi nga xamante ni moom moo di euh, chauffeur boobe mu ngi ci ay loxo yoon ngir xool daal fan la wànnante di mujjee ak i gëtëm. ci ki nga xamante ni rek moom moo tudd du M moom nag daanaka sax dafa daal di xaru foofee ca diwaanu Kër Massar euh, bar démb ci euh, talaata démb ci àllarba ji moom nag sax daanaka am ñeent fukki at ak ñaar ak ñeent bu ñu sukkandikoo ñenn itam ñeent fukki at ak ñaar. ñaar yëpp daal siiw na ci ñi nga xam te ni det moom moo di taskat taskatu xabaar yi waaye daal a jàpp rek M daal dinay eh, faat boppam moom daal dafa jël ay fanam gannaaw nag ni nga xamante ni daal dundee woon na ko ak ñii di ay mbokkam jàpp ni sax loolee ab frustration la moom nag gannaaw bu doolee amee sax ay mbokkam daal yëg loolu nekk na mbir moo nga xamante ni mbir mu leen naqari la ndax ñu bëri ñoom jàpp nañ ni que moom Mamadou daal dafa jékki-jékki rek daal di réservé wu carrément tax sax mu jige woon foofee ke diwaanu Casamance ngir ñëw ci ndakaaru daal di fii liggéey si ca boobee jamono sax la am lii di benn poste gardien ab kër bu nga xam ne dañ ko ko àll ca kër googee sax fa lañ ko fekk mu daal di faat bakkanam laata muy faat bakkanam sax ñi nga xamante ni rek ñoom ñoo yor enquête bi bi ñu ñëwee fekk nañ ab bataaxal bu nga xamante ni daf ko teg ci kaw lal bi wane nañ ko daal ana yan anam moo tax mu daal di eh, rey boppam luñ ci mën a teg daal moom mii di waa ji daal dinay ñàkk bakkanam ci anam yi nga xamante ni ay anam yu dooy waar la jamono bii nag néewam ñu daal di ko yóbbu ci l'hôpital waaye itam euh, ñii di euh, nga xamante ni ñoom ñoo yor kaaraange euh, dëkk bi di waa police ñoom itam daan nañu bilanket xool ana dëgg-dëgg lan moo tax kii di gardien boobee daal di yemale fii ay fanam. ñu àddu ci audience bi nga xamante ni moom moo amoon démb foofee ca tribunal bu Thiès kaay foofu nag mbirum firange sax moom moo waral benn couple daal di ñëw ci kanamu àttekat bi. foofu sax daanaka ab soxna su nga xamante ni daal daanaka eh, fiiraange moom moo ko daal di jàpp waral mu daal di sotti borom këram ataaya bu tàng ci kanam gi ba mu jural ko ay gaañu gaañu lépp nag mu ngi dooree gannaaw ba nga xamante ni daal moom am na lii di eh, ay su ay soupçon jëmale ko ci borom këram mel ni daal ko nga xamante ni dafay doxaan waroon nag moom mii di xale bu jigéen boobee mënatu koo muñ daal di sotti borom këram ataaya bu tàng ci kanam gi moom nag di ab yaay ju nga xamante ni daanaka am na ñett doom bu ñu sukkandikoo ci ñi nga xamante ni rek ñoom ñoo joxe xibaar yi daal di judd ci atum 1983 moom nag bi mu jàkkaarloowee ak eh, ñii di attekat bi daal liñ koy toppee moo di eh, coup et blessure volontaire moom sax daat nay nangu li nga xamante ni loolee lañ koy toppee ci kanamu yoon. lépp nag mi ngi dooree nee na bi mu bi nga daal fekk na eh, kii di boroom këram nekk ci communication. ci téléphone am xaaji guddi muy wax ak jigéen bu nga xamante ni daal nekkul soxnaam moom sax loolee moo ko uh, poussé ba mu daal di uh, fiir daal di jël li nga xamante ni moom moo di ataaya bi nga xamante ni waroon na ko ko jox mu daal di koy xëpp ci kanamu borom kër bi moom nag daanaka sax bi nga xamante ni loolee am na moom mi di borom kër gi dafa daal di dem foofee ci hôpital ngir def li nga xamante ni rek moom moo di soins yi gannaaw nag bi loolu amee sax la ko hôpital daal di bindal certificat médical moom sax ci ginnaaw boobee la daal di porter plainte kii di. soxnaam ngir jëf ji bon ji nga xamante ni def nañ ko ko bi nga xamante ni nag daanaka sax ñëw nañ ci kanamu yoon moom mii di euh, euh, soxna soose daal nay wax ni ko daal moom dafa jóge woon fa nga xamante ni moom moo di euh, seen ay kër mbokk daal di yegsi rek fekk kii di boroom këram nekk ci kaw terrasse bi daal di wuy téléphone loolu nag nga xamante ni mënu ko woon a muñ moo ko daal di poussé ba nga xamante ni daal mu daal di koy def borom këram moom sax nee na kii di borom këram ngir défendre wu rek kii di borom këram daf ko dal di traité ni que xale bu jigéen la bu nga xamante ni yamoon si moom dafa daan taxawaalu waaye te mu gëntal nag procureur de la république daal di sàkku yoon def liggéeyam waaye itam moom mii di xale bu jigéen bi mu daal di fay lii di trois cent mille francs maanaam eh, maanaam ñetti téeméeri junni bu ko defee nag juróom benn fukki junni yooyu nag moom mooy nekk li nga xamante ni rek moom moo di eh, guise eh, maanaam gis de dommages et intérêts mbir mi nag jamono bii nii eh, ñu ngi xaar kii di attakat bi joxe daat bu nga xamante ni boobee la mbir mi nara daal di daal sotteeku ku ne xam fa nga daal di jëm. ñu dem itam foofe ca tribinal bu Saint-Louis daal di àddu itam ci mbirum euh, maanaam viole bi nga xamante ni chambre criminelle euh, bu Saint-Louis daal na koy àtte ci euh, àllarba ji foofe ca diwaanu Saint-Louis foofu nag ab chauffeur bi nga xamante ni daal daanaka am na fanweeri at ak ñaar moom nag li ko xale bu jigéen bi doon toppee sax moom moo di viol pédophilie ak détournement de mineur ñoom nag ci kanamu attekat bi ki nga xamante ne rek moom moo di MLC eh, di moom daal daal dinay eh, reconnaître ne que sekk na ak xale bu jigéen bi di wuyoo ci AA Kunja waaye nag nee na nag ñoom ñaar ci ab restaurant ñu xamante ci gannaaw boobu nag la xale bu jigéen bi daal di nangu ànd ak moom bay tëdd ak moom waaye xale bu jigéen bi nag bi nga xamante ni dafa janoo ak ñii di àttekat yi li mu xam ne rek moo di eh, kookee daf ko daal di doroge waroon nag loolee daal di am waaye sax daf ko daal di forcé ngir tëdd ak moom moom xale bu jigéen bi nag nee na loolee daal di nay am daanaka ñetti at ndax moom sax ci la jëlee woon ab ëmb mu nekkoon nag mbir mi nga xamante ni métti woon na ko lool waaye nag jamono bii nii bi nga xamante ni daal eh, enquête yi wéy na ci kanamu àttekat eh, ba moom mii nga xamante ni daal moom moo di eh, MLC tribunal daal dinay dàq li nga xamante ni moom moo di viol ba waaye nag daal dinay reconnaître ni que moom mi moom moo daal di def jëf jooju nga xamante ni lañ koy toppee wala sax tribunal daal koy daan ñaari atu kaso yu nga xamante ni daf koy tëdd waaye nag loolee sax moom tëdd na ko bare kon donc mujjee naa ñibbi këram gannaaw nag décision bi nga xamante ni lii di juge jël nañ ko. yàlla na leen yàlla yërëm. ba tàmbali na de démb ca conseil des ministres président Bassirou Diomaye Diakhar Faye nee na nanu xool lan moo waral ñu foqati ndoxum Sénégal ci loxol SONES jox ko kon seen o nanu càmbar loolu nañu continuer liggéey bi nga xam ne moom mooy ñoŋal këy diine yi ci biir Sénégal modernisation bi bu mu taxaw waaw te it nañu def yenn poste yi appel à candidature bu fi bras dugal kenn te dinañ dolli loolu ci décret boo xam ne yenn responsabilité yu mag yi ci réew mi xereñay tax nga yegg fa waaye du baralon ba noppi dal ne ñu def ab taxaw seetlu ci yoon justice ñu defal ko assise le 28 mai ngir ñu waxtaanee justice yu réew mi ngir mu mën a moom boppam waaw moom président Bassirou Diomaye Diakhar fa yemul foofu nee na cour des comptes IGE OFNAC lépp lu ñu mës a def ci rapport dale 2019 ba jonn yàllay tey képp ku mës a luubal alali réew mi ba rapport jàpp la nañu publier lépp ñëpp xam ñu randal alali réew mi toftal ci daal taxaw université càmbara leen ngir étudiants yi seen i nekkin gën a ñoŋ daal ne it nañu xoolaat contrat yi nga xam ne ñoom ñoo dox ci diggante euh, suñu euh, mbiri géej yi muy Dakar Nave ndaayaan ak euh, suñu li ñu seq ak World ba noppi toftal ci ne suñu contrat mboolem pétrole yeeg gaz yi nañ ko waxtaanee waat waaw génnewaat lépp teg ci taabal ji waaw. kon président Macky Sall ndakate moom laataa moo dem delloowaat na Pastef lépp luy seen àq ak seen yelleef mosu koo toj mosu koo dissoudre naqar wii waa Barça di dund. bu amut mort dina am blessé leer laneen lu leer ba yegg ca nañ ja ci ñoom université yi tamit fa santaane ñu dem gëstu la fa am ak la fa dox ak lay problème yeeg yëpp mu leer ba ci sax chantier yi nga xam ne mooy chantier naval ak port bu ndaayaan bi nga xam ne depuis woot moo ko yoroon fa wax ne lépp nañ ko audité mu leer ci gàttal mboolem contrat ba ci secteur maritime bi maanaam contrat de pêche yi napp gi chinois yeeg tubaab yi Europe suñ jën yu baax yëpp fañ koy napp di ko yóbbu loolu yëpp fañ koy xoolaat su laajee ñu dakkal ko jàng ñu nangu ko dugal ko ci biir comme diplôme ñu jàng france ba pare fay taxawal banqaas boo xam ne fay saytu mbiru diine ji wëyal defar ak yeesal këru kilifa diine yi bokkaat na ca dogal ya taxawal banqaas boo xam ne fay saytu wàllu ndox mi ak juróomi conseil interministère yoo xam ne fañ koy amal jagleel ko mbiru tabaski beeg nawet bi waaj a ñëw campagne gerte gi wàllu examen yi ak concours yi ba ci aju màkka gi te le quotidien le quotidien révèle budget 2024 mais budget 2024 mission et eh bien mission du gouvernement à Washington le FMI et eh bien le FMI demande à l'État demande

lay del kebir udd lay del tànn su la neex waaw lii nag yéeme ne te doy wàll nañu dem ca yëmbal yëgle kaay gi naan man waaye wa ubbil yéene kaay gi am kenn ku ci faatu am ñeent ñu ca blessé léegi fa yëgle kaay naan man ak lu mën a xew daal bu doon lii di aw machine la jàppal ni départ na de wàllum audit édition xoolaat compte yi yëglekaay gi naan maan defaat lépp li nga xamante ne mu toll jomaay tàmbali na ko idée bu xamoon ne lii fii la koy jëmale du ko tàmbali ba di ko def yëglekaay ko ci ngoy ma la bëgg yëglekaay gi ne kii de Moussa Traoré lay wuyoo moom bu wëtuwul fukki at ak ñaari kaso ci jëmi boppam moo koy xaar ndax daa dem sëgg ci kaw doomi genn waay goo xamante ne waaje sax nee ñu milliardaire la te xale bu ndaw la laa la wax aw fii mu daal day sëgg ci kawam nii ba daal di ko violé nii doy na waa bon gaa ñu dem seeti le point info yëglekaay mu naan ma gaa ñi ngi doon wax naan deux cent agents de la poste des leen a laa loolu amul yëglekaay gi naan man nee ñu fake news la ay wax yu wérul la dara du ci dëgg ñooñe ci seen jëmi boppam du rupture de waaye contrat bu jeex ci jëmi lii mi ngi xawee aéroport international Blaise Diagne moom xalif général Thierno Bachir Tall dañu ko ne salon d'honneur bu aéroport ba doo fa dugg moom Thierno Bachir Tall ma nga xam ne États-Unis la jëmoon waroon jaar ca Paris ñu tere koo dugg ba xalif général dafa mujj génn aéroport dem waxtu wala mu door di dikkaat ci aéroport ba ñu xamal ko ni nag officiel yi kese képp léegi ñoo am droit dugg ci salon d'honneur ba ndax nag régime bu bees bi moo ko tëralee nii woo nañu ministre de l'intérieur ba sonn kenn mënu koo jot lii tax nag yéen kaay bi sampub laaj mbaadu nag xalif généraux yi ci réew mi léegi ay citoyen ordinaire lañu comme ñëpp le soleil yéen kaay naan kon moo ne day direction des affaires religieuses taxawal nañ ko te ña ngi ko loge ca présidence wax nañ ca conseil des ministres ba it ci waajtaayu tabaski tribune yéen kaay naan kon jarul sori Sénégal juróom-ñaar fukk ak juróomi junni ci ay xar ko Le Soleil naan kon wax nañ ci nawet gi wax nañ ci mbay mi wax nañ ci examen yi concours yi waaye tam wax nañ ci aj màkk gi. En avril 1987, le pays n'a plus de police nationale. La condamnation de sept policiers accusés d'avoir torturé à mort un jeune commerçant est à l'origine des protestations du corps. Et elle nous parle de ces manifestations qui sont organisées à Dakar et à Thiès. L'État fait intervenir la Légion de gendarmerie d'intervention pour disperser la marche qui se hâtaient vers le ministère de l'Intérieur. Et dans la foulée, le ministre de l'Intérieur et ses collaborateurs sont démis de leurs fonctions et 6265 personnels de police successivement suspendus et radiés. 1988, c'est le temps des crises, la pré et la campagne électorale pour les élections présidentielles et législatives sont marquées par des manifestations folkloriques, des comités de soutien et une vive polémique autour du code électoral. Des violences a décrété l'état d'urgence le 29 février 1988 après avoir fait arrêter les leaders de l'opposition, à savoir Abdoulaye Wade et ses co-inculpés accusés d'atteinte à la sûreté de l'État et de violation de la loi anti-émeute. Ils sont jugés en avril et le procès remobilise les partis de l'opposition. Ensuite, entre 1996 et 2000, la démocratie sénégalaise prend un coup alors qu'ailleurs on découvre et cherche à perpétuer les délices de la démocratisation. C'est l'heure des réformes presque unilatérales initiées par le dont la longévité au pouvoir a réduit la lucidité et a donné l'illusion d'une invincibilité dont il ne va pas tarder à revenir. Abdou Diouf nous dit Kandé ne s'était pas convertie à l'autocratie, mais l'usure du pouvoir l'avait éloignée de certaines réalités et affaibli son jugement politique. Et, c'est ainsi que le mars les Sénégalais mirent un terme à son long bail avec le pouvoir et le Sénégal rendu sa première alternance politique. La suite donc du grand dossier euh, sur quatre hommes, un, État à lire dans les pages 6, 7, 8 et 9 de Sud Quotidien. La ilaha illallah dama ne la dugg Dubaay pod wóot nag pooru ndaayaan ba nag contrat yi ñu fi signé nag président Diomaye na na lépp leer les ko yéene kaay ne ko may mama yeggali may mama yeggali nee naa la conseil des ministres ba kay maa lay tegal ah waaw parce que premier ministre bi la président de la république bi na gaaw évidence yéen kaay ne ko kon yow dee góoma de Ousmane Sonko juróom-ñetti fan la jokkoon waa gouvernement bi lée la ilaha illallah parce que moom day premier ministre démb ca conseil des ministres ba waaw daal dinay xam le nag benn séminaire gouvernemental boo xam ne danañu ko amal le ak le avril bi lée ilaha illallah léeg foo yéen kaay ba day taxar nag daal nañ machine ba nag la machine sambal muy audit ya reddition des comptes ni mu nga ci ministère Ibrahima Kane ministre bu bees bii di Khady Diène Gaye ne seen histoire nag yàgg na ci ministère des sports li tax jamono ji nag Mariam Kane Diallo daal ci département formation coopération la ko waral lenn kese la mooy jamono bi nga xamante ni ñoo ko fay tabb ministre bu bees bii di Khady Diène Gaye dafa waxoon ne comme que moom moo ko du nangu mukk nekk nag taalibeem ci ministère ba kenn ci ñoom ñaar musul toog laa wax moroomam toog ndax jamono jooju a 2015 nangu wuñu jëflante ñoom ñaar suñu ministre bu bees bii nangu benn yoon boo xamante ne nii moom moo ko gën a suufe grade naan daf koy jiite loolu la mës a bañ lii moo nekkoon seen problème ci ministère ba yéenekaay bi sax mu ngi ñuy fàttali lettre bi nga xamante ni bindoon na ko Matar Ba ba après lañ ko mujjee génne ci poste de responsabilité bi ñu ko joxoon mu nekkoon chef service des sports ci région bu Dakar ñu yóbbu ko région bu Kaolack madame Khady na ci ne jamono ji nag ko defee ministre des sports médiation bu laa la wax def nañ ko ci seen diggante ñoom ñaar ay madame Diallo dafa bañ de nee du mës a toog laa la wax ak ministre bi jamono ji nag bind lettre de démission am génn ca département des sports kaay Serigne Saliou Gueye ne groupe Futurs Médias day ajjuma ji dañoo fa seenee grève de maar day taali mbaa ay mbirum salaire wal fajiri ne gouvernement bi de ñi ci gën a bëri ñëpp waaw waaye impôt domaine lañ de waaye fi ko bëgg a lal du foofu de bëggal lijjanti lépp bi lée mission gouvernement bi ca Washington waa FMI day nee leen soppi waat leen seen taxawaay de kon dee bu ñëw moomu gaaw ndax tabaski baa ngi ñëw tribune yéene kaay ne xar liñ ci war a soxla waaw toll na ci juróom-ñaar fukki junni ak juróom soixante quinze mille têtes ci tabaski bii di ñëw nañ fexe rek ba mu seer <laughs> li ci gën a fës rek moo di Real Madrid euh, éliminé ki nga xamante ne rek moom la daal di éliminé euh, ñi nga xamante ne ñoom ñoo di euh, waa Manchester City donc nekk loo xamante ni réew mi askanu Sénégal jeunesse rawatina ñiy dund football ñu bari ñu ngi koy bégee waaye itam affronté ki nga xamante ni moom moo di Bayern la nar Bayern nag ñee ñu assuré na nag li nga xamante ni moo di l'essentiel bi contre Arsenal euh, rejoint nag li nga xamante ni moom moo di dernier carré bi rek moom moo nekk ci aw kanamam Iliman Ndiaye ñu naan ça passe ou ça casse fi mu toll nii tembe aw mbiram noonu la demee mbokk yi leneen li nga xamante ne rek moo am ci réew mi askan sunu gaal mooy kii di njiitum réew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye euh, kaddu yi nga xamante ne moom la yëkkati rek di kaddu yi saytu ak xool lépp loo xamante ne rek ci nguur ak Macky Sall la doore lépp rek li nga xamante ni moom la ñu war a auditer lu ñu war a teg lu ñu war a teggi lépp rek daal dina ci waxtaan li nga xamante ni rek moom moo nekk ci kanam laataa ñu ciy xuus mbokk yi dañ leen di fàttali rek ni leen parti gi parti Pastef te lañ ko doon wax ex Pastef gile parti nag moomaat na waaye itam jëlaat na lépp lu ay droit de parti am euh, politique am nag fi mu toll nii tembe daal euh, moom bokk na ci parti politique yi nga xamante ni daal yu légal la ci réewum askan sunu gaal lu ni mel nag am na euh, ñetti fan ginnaaw rek élection présidentielle yi moom Bassirou Diomaye Diakhar Faye moom moo ko daal di signé googile décret di wane ni daal partie parti Pastef moom nekkaat na parti wi nga xamante ni moom la réew réewum askanu sunu gaal yëpp doon xaar ci moom euh, nekkaat na ko fi mu toll nii nag li nga xamante ni moo nekk rek mooy Bassirou yi fay exigé gi nga xamante ni moom la exigé la publication des rapports d'audit euh, bu 2019 ba 2023 yooyu la juróomi at yëpp rek moom neen ne nañu publier li nga xamante ni moo di góogile euh, rapport leneen li nga xamante ni ba tey moom la ñuy waxtaane rek mooy euh, l'observateur li mu wax nee ne jomaay fuy Macky Sall mel na ni daal ku tiim nit rek di ko fuyate di seet ak saytu ndax nee nañu def contrôle des services de la présidence audit ci ni mu gën a gaawee euh, ci lu jëm ci wàllum contrat d'affermage yu état sonnes ak o ñu topp li nga xamante ni moom moo di la modernisation des cités religieuses appel à la appel à candidature pour certaines hautes euh, fonctions dans les secteurs publics yooyu itam wax na ci wax na itam ci li nga xamante ni moo jëm ci wàllum njàng meeg njàng la ak itam lépp lu nga xamante ni rek lu ñeel la ak itam lu ñeel càmm gi ak mbay mi tam euh, fexe ba lépp daal di ñoŋ rek baykat yi di jot ci li nga xamante ni moom moo di jiw wi saa sunu ko manee euh, jot rek ñu daal di ciy jot ci ni mu gën a gaawee mu bañ am bañ a am rek lépp lu jëm ci wàllum ay tag tagaan nag yu nu mel su di ko jijee yëglekaay daan ne ma la jub jubal ak jubbanti moom lay ki nga xamante ni moom moo di njiitum réew gu yees gu askan sunu gaal di doxal publication des rapports de la cour de GIE deux mille dix-neuf ba deux mille vingt-trois di juróomi at yile mbir moom dina leer nañ ci réew mile ba mel ni aw bëccëg kon nag mbokk yi mooy li nga xamante ni moom lañ leen indiloon rek ci xibaar yi nees gis ñu dikk ak ci yaatal ci li jëm ci wàllum café gi ay ca gaañi mi gokk café gi nanu ko naan si mu leexoo ko waaye jaw dañuy si mu leexu waaye di man a salaam yëngu na maa la wax lii kon nag gaañi ñu ngi jaajëfal ñëpp di bëggee ñëpp di nit bàyyi xel képp koo xamante ni yaa ngi ñuy mi ak bitim fépp fu waay nekk di ñu teewlu rek ñu ngi lay jaajëfal di la kontaane di leen wax ni jokko njal merci thank you ah euh, Ocean Xarasho ah Dras TV ah kontaan nañ ci yéen ñëpp ñi nga xamante ni yéen a ñuy teewlu dina bàyyi xel ay te ñu ngi leen di xaar kon nag mbokk yi xarit yi dëkkandoo yéen ñëpp ñu jaajëfal leen jox leen dig daje ba suba ak jàmm ak salaam seen mbokk seen xarit Fall Damel jërë ngeen. salaamaaleykum sama gars j'espère que vous allez bien. dikkati naa. dalee na jàmm. lu yëgle kaay bi xëyee tey ma daal di leen koy yër. Sénégal bonjour. cher gente de Enquête 221 dal leen jàmm dal ci li gën a fës ci yëgle kaay yi. messieurs bonjour. ñuy naa ñëpp fi laay tàmbali yéen ci seen revue de presse teel sa kaas kofe nga guux bala ngay naan bay si mu leexu mox la li xew ci réew mi sunu gaal gi jërë ngeen jëw alaan ah, ah, bikum mais da ngay seet loolu rek mbaa yéen a nga ca eh, seet te te te nag yàlla baax na ñu yendoog jàmm bu subaak jàmm incha allah yendoog jàmm C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. Que mais la tidong, mais la tidong de Tchei Allah. Founou Djabati. Bon, que Dieu préserve le Sénégal. Ak lu mëna mbokk yi ñu ñaan jàmm te yéen doog jàmm. si laatit bu baaxee rek ba sama clavier ñu dem ba suba ak ak salaam yéen a ngi doon déglu seen revue de presse wolof ak Fall Damel Jaakin Diop. ñu yéen doog jàmm ba ëllëg incha allah.